ngir di jéem a laabirante ak mbokk yi fi bàyyi ay laaj di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu leeral sunu kàddu ubbi sunu dënn te defal nu ak dëggu ba lépp lu nuy tontu rek mu fekk ne am na fu ñu sukkandiku te mu may nu ak oyof goo xam ne lu nu xamut yàlla dimbali ne ba ñu nangu ne loolu kat xamu xamee su ko ñu bàyyi ko borom xam-xam ya ko xam insha allahu rabbi yàlla yàlla nangul na sunu koor yàlla koor gi ñu nekk yàlla bu mu nekk sunu mujj koor sunu boroom noo lay ñaan bu ñuy génn ci koor gi insha allahu rabbi yàlla bu ñu desee benn bàkkaar yàlla nga dimbalinu ba ci biir koor gi sunu ay jikko yu ñaaw ak sunuy melo yu ñaaw yépp sunu boroom nga dindil nu ko bu ñuy génn koor gi yàlla bu ñu ko génn waale lépp ñu ngi koy ñaan ci barke alquran mi wàcc ci weer wi ak ci kim wàcc ci moom muy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu dee laaj bu njëkk bi mbokk mi day laaj ne dafa seetlu ne ajjuma dafa déggoon ñu ne imaam bu xasee ba ñëw toog ci kaw min bar bi muy foofu muy toog wala muy xutba kenn wërta ñëw di naafila mu gis am ñoo xam ne dañ koy def waaw loolu de li ko waral mooy léeg-léeg boroom xam-xam yi da ci am ay mbir yoo xam ne dañ ci am ak ñàkk déggoo ñenn ñi dañ koy gise nee am fuñ ko teg ñee gise ko ne am fuñ ko teg nekkul nag wax sa xalaat déedéet ku ci nekk day am foo ko teg am benn xadis boo xam ne da nga ko dégg nii nga ne kon de kon nii nii lees war a def am ko de ah waaye am na beneen xadis bu wax nangam kon jàpp naa ne ku def nii baax na loolu nag moo waral lu mel noonu bu dee ci mazhabu imam Malik ñoom imaam bu xasee ba toog ci kaw minbar bi doonte xutbawul sax kooku moom dañuy tere nga ñëw naan da ngay la bu xasee ba tàmbalee di xutba rek kooku moom daanaka dañ koy araamal waaw dafa xaraam dañoo xam ne kooku moom ku ñëw toog dong nga mën a def déglu xutba bi waaye waroo julli waaye lool nag nga jàpp ne mazhabu Malik ñoo ko wax waaye am na ay yeneen woroom xam-xam ak yeneen i ngiir yoo xam ne ñoom gisewuñ noonu am na xadis bu ñuy tegtaloo ne yonent bi daal bis da doon am ku ñëw daal di toog yonente bi dagg xutba bi ne ko ndax julli nga ñaari ràkk mu ne ko déedéet mu ne ko kon jógal julli ñaari ràkk ñoom ñu sukkandiku foofu nekkoon daal imaam buy xutba soo ñëwee tamit na nga def julli ñaari ràkk ta nga gaawal ko bañ ko nekk di ko yeexantal amaa nag imaam ñuy liqaamal imaam ngay julli kooku moom ñëpp maase na ne dañ koy tere kon isaa uqimati sol isaa uqimati solaa fala solata illa al maktuba yonente bi nee na saa yu xasee ba taxawal julli nag bu fa kenn xaj-xajal genn julli nag gudul julli gi nga xam ne moom la ñu liqaamal imaam ci kooku moom ñëpp tere nañ ko amaa bu dee imaam day xutba nag am na ñoo xam ne seen ngir may na leen loola moo tax yow boo ñëwee eh, di sukkandiku ci ngiru Malik toog bu keneen ñëwee sukkandiku feneen jóg di julli jërul na nga di ko wax dara tax diina ji dafa yaatu xam-xam dafa xóot wallahu aalamu laaj bi tege mbokk mi laaj ne eh, kuy tukki dafa dégg ñu ne kuy tukki rek may nañ ko mu bañ a woor muy laaj loola nu mu demee dafa am ay charte dafa am ay charte saa boroom bi muy farataal ci nun koor dafa jéggal ñaar koo xam ne dafa tawat ba mënta woor ak koo xam ne dafa nekk ci tukki kooku dañoo yolomal ci moom boo ko neexee mën naa bañ a woor donte nee ñu bu mënee woor nag ndekam amul benn jafe-jafe bu mënee woor moo gën waaye daal may nañ ko ko waaye nag jàppal liñ lay waaj a wax ban tukki ban tukki tukki bi day nekk tukki boo xam ne gën gaa gàtt dana mat diggante fii nga jóge ak dëkk ba la nga fas yéenee jëm gën gaa gàtt man na juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar ñenn ñene juróom-ñett fukk am sax ñu tudd juróom-ñett fukk ak juróom kon nga bank sa baaraam muy benn ñaareel ba tukki bi doo fa def euh, euh, Euh, doo fa am soxna waaw doo fa am soxna foofee ngay tukkee doo fa am soxna waaw doo fa am soxna ba ca tegu tamit mooy waxuñu tukki boo xam ne maanaam doo fa àgg di toog di liggéey kooku boo ko defee comme moodu moodu yi nga xam ne ñaan damay tukki tukki yooyu taxul ñuy wax loolu du tukki kooku ma dem liggéey la tudd man dem Italie fas yéenee toog dem dakaar fas yéenee toog kooku moom waxuñu loolu kooku waxuñu loolu kon kooku boo demee dakaar yaag waa Dakar yéen a boo demee Italie yaag jullit ñi nekk Italie wala ñu nekk Amérique yéen a yem li ñuy wax kay mooy da ngaa xëy rek ne ah man am soxla barab nangam war faa dem war a dëppaat waaw kay daa loo fay toppatoo rek war a dëppaat kooku moo tax ñuy wax ba ca tege tamit mooy tayit mm, xëdd bu fekkee ne bis bi ngay tukki bis bi ngay tukki da ngaa bëgg a woor bis boobu nga ne bis boobu da nga bëgg a bañ a benn na ko yéene da nga ne kon suba du damay tukki du ma woor fekk sàpp yi ma njëkk wax daje na tayit nag xëdd bu mu la fekk sa dëkk bi maanaam na nga na nga fas yéenee xëdd jamonoy xëdd moom na fekk nga génn dëkk bi waaw bu doon Dakar nekk jamono ji ñuy xëddee moom la fekk biir Dakar ak ko wër Dakar rek région Dakar bépp la ñuy wax nga ne bu ñuy xëdd moom na fekk na génn nga ba yaa nga toll Thiès su ko defee nag bis boobu moom sañ ngaa bañ a woor waaye boo toogee euh, Dakaru ba ay huit heures neuf heures nga ne damay tukki kooku moom faw da ngay woor boo àggee fa nga jëm nag bis ba ca tegee nag bis ba nga tegee nga xam ne yaa nga jawbe jawbe nga xam ne fa nga fas yéene dem ngir wuti tiir wala wuti daqaar wala wuti nàngam wala yàlla fay waa jawbe te doo leen xéewal nga ne fa nga bëgg a jëm fas yéene am ñaari fan yoo xam daa am ay bagage yooyu lijjanti ñaari fan yooyu nga xam ne ca dëkk ba la la fekk nag moom bu la neexee nga yéene bañ a woor waaye bis bi ngay génne Dakar lii tax nga man koo bañ a woor mooy xëdd bu mu la fekkee biir dëkk ba te loolu da nga koy yéene dogu ca da koy yéene dogu ca waaw su baa daal sañ ngaa bañ a woor bu weeru koor gi jotee jeexee nag nga fay ko waaye nag waxuñu nag koo xam day tukki tukki boo xam dafa fas yéene dem toog wala wala wala wala yu ko nuru kon nga bàyyi ci xel ànd ak loolu lépp euh, bu dee yoonu Maalik moom wa an tasuumu xayrun lakum dañu wax ne ànd ak kuy tukki nag bu fekkee daal sonnul ci tukki bi amul ay jafe-jafe la gën rek mooy mu woor wallahu aalam mbokk mi di laaj ñi nga xam ne bu ñu wooree dañuy jël ay yére di ko tooyal wala ñuy xëppoo ndox waaw loolu de dañuy xool ba xam ndax ngànt la wala déet bu fekkee daal waa ji fi mu nekk tàng na tàngoor woo xam ne ca dëgg-dëgg lii bu ko defut dana ko lor su boobaa loola ayut ayut mu def ko ayut mu def ko ndaxam sax nit bu nekkoon foo xam ne tàngoor wa jéggi na dayoo ba bu ko boolee koor gi day loru lislaam teggil ko koor ga lislaam teggil ko koor ga mu demee ba jamono ju neex jamono joo xam ne tàngoor wàññi ko na su ko defee mu daal di fay mu daal di fay bu fekkee nag xëy na euh, ay caaxaan rek moo ko waral ni koo xam daal xëy na daa bëgg ay caaxaan rek nag euh, ndax nit ñëpp ñoo yëg tàngoor wi euh, daal bëgg lu noppale ak yu mel noonu kooka la muy def nag sib nañ ko gënut la muy def mën naa wàññi tuyaabaam sib nañ ko ndax dafa mel ne daa bëgg wax yàlla naan ko lu metti li ma teg nangam nangam fekk yàlla xam na ne lim lim lim lim tege xam na ne lu tegu la xam ne lu doomu aadama attan ndax moom nee na du ma teg du ma farataal ci yéen dara loo xam ne daf leen di daf leen di lor wallahu aalam mbokk mi laaj pikiir ndax ku woor mën na ko def pikiir ku woor mën na ko def ku woor mën na ko def la ñuy tere rek mooy lu mel ne samp biteel wala boog muy pikiir boo xam ne dalay eh, day day remplacer lekk wala naan pikiir yi xam nga am na ci boo xam ne ay vitamine lay def ak eh, yo kooku moom daanaka day wuutu ak lekk wala naan maa bu dee pikiir yi contour nangam eh, ku siburu ñu koy pikiir wala xeetu vaccination yi am ngir doo feebar nangam du la dal yooyu moom ayut nit mën naa war def ko wallahu mbokk mi laaj sol kap waaw kap de bu dee ci lislaam mbaxana rek lañ koy jàppee xëy na bu dee fii ci réew mi sunu aada daa fekk nag cap tubaab lañ ko xamee woon tubaab yi seeni jamono nekkoon ñoo xam ne ñu saay-saay lañu woon euh, rek moo tax mu bokk ci suñu suñu yar lépp loo xam ne tubaab dañ leen ko xamee woon ñu bàyyi leen ko fi bañ a topp seen culture seen loolu rek la waaye laa cap moom mbaxana rek lañ ko lañ ko jàppee euh, taxul nag ñu naan cap lislaam da ko ter déedéet mbaxana daal lañ ko jàppee bu fekkee nag réew mi seen aada moom da ca nga ne boo ko solee ñu jàppe ko ñàkk teggin wala leneen euh, loola moom su boobaa kon loola aaday réew mi la waaye nag ci lislaam moom euh, kap buñ ko xoolee daal mbaxana rek lay taxawee amaana sax nag mm, sol kap nekk loo xam ne lu lay sant la lu mel ne koo xam ne day liggéey di dem ci mbedd yi di wëreelu naaj wi tàng nga xam dana ko mën a fegal naaj wi euh, su boobaa loola moom lu baax a baax sax lay doon boole ca waaye dañoo bëggoon rek nag ñenn ñu ci nekk xool seen mbatit mooy xool seen aada yi maam ci wàllu woowa nañuy solo ak nañuy kiyee ñu topp loola loola lu baax la nii rek ci wàllu aada waaye bu dee ci lislaam daal eh, insha allahu rab kap mbax mbaxana rek lañ koy jàppee wallahu aalam laaj bi ci tege mbokk mi laaj mu ne dafa dégg ñu ne giñ bokkaale yàlla la waaw xam naa li bëgg a wax mooy giñ goo xam ne giñoo ci yàlla dafa am benn xadis boo xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa déggoo Seydina Omar muy giñ ci baayam comme ñun nañ ko tàmmee rek giñ ci sa sëriñ a giñ ci nàngam yàlla na yàlla ne Seydina Omar euh, yàlla ne euh, yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne Seydina yàlla yàlla tere na leen yàlla de tere na leen ngeen giñ seen xeetu ngiñ yii ku ci giñati na giñ ci yàlla bu ko mënul mu noppi bu dee Sénégal nag ñun suñ giñi giñi aada rek la dañ koo tàmm barka diw nga xam ne léeg li nga giñ dëgg la du dëgg euh, ndax li jaadu woon mooy sëriñ bi nga wax ne da nga koo fonk dëgg dëgg sax daanaka wër li nga koy tudd wër ta bari waaye daanaka buñ ne lay gi dagg na rek euh, nga daal di giñ nga di giñ waaw lu ñor nga giñ loolu day wane ne sëriñ bi warmaaloo ko warmaaloo ko ndax ko warmaal doo jekk lu lu tëb rek nga tudd ko loolu ëpp naa def moo tax dañ koo tàmm sunuy làmmiñ giñ buñ ne ñi nga daal di giñ waaye bu dee ci lislaam daa wax ne man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw li yasmut am na xadis boo xam ne day wax ne képp ku giñ ci ku dul yàlla bokkaane nga yàlla saa borom subhanahu donte bokkaale googu nag bokkut ak bokkaale gi ñu miin maanaam giñ mooy lan giñ mooy dafa am loo xam ne da koo bëgg saxal nga bëggoon a lii kat ma bëgg saxal xëy na yow fekkee woo ko yow mi ma ko giñal waaye maa ngi woo yàlla mi nga xam ne moom fekke na ko waaw naa dem naa barab nangam amoo kenn ku la témoin nga bëgg a wane ne dëgg la awma ko moté waaye rek yàlla mi nga xam ne lépp lay fekke moom maa ngi waat ci moom ne moom maa ngi koy jël témoin ne lii mu wax dëgg la kooku nag yàlla rek moo ko moo ko yeeyoo yàlla ndax yàlla dong moo moo ko xam ndax bu dee kilifa gu baax gi ngay waat yu mel noonu kooku mën naa am xamul loolu li nga li nga a jël témoin ne def wala defoo ko moom yoonam nekkul ci loolu léegi nag wuutu gi ngay wuutal yàlla di fa teg keneen loola rek mooy maanaam bokkaale na yàlla mooy maanaam bokkaale na yàlla moo tax giñ daal yonante bi nee na kuy giñ na giñ ci yàlla wala mu noppi yàlla tere na leen ngeen giñ ci lu dul yàlla Eh, inna allaha yanhaakum la wax an taxalifu bi abaikum yàlla tere na leen ngeen a giñ seen i maam ak seen baay ak yu ko nuuru wallahu aalamu mbokk mi laaj jigéen joo xam ne am na boroom kër mu dem njaaloo ak geneen góor te nee na nit ñépp xam nañ ko ci waxi mbokk mi nee na kooku bu ko lislaam doon àtte da koy rey nga xam ne loolu nag teel na teel na lool nga ne lislaam bu ko doon àtte da koy rey ku la ko wax ku la ko wax attey l'islam bokkut ak nga naan nit ñi xam nañ nangam lislaam ay atteem du noonu waaw l'islam ay atteem du noonu xam naa daal li gën rek mooy nga ne kooka de bu ko l'islam doon atte bu fekkee l'islam seede yam bëgg am na ko waaw kay man dañ koy rey waaw kay loolu lañu noonu la ñuy waxee waaye doona diw njaalo na waa koñ bi xam nañ ko rek dañ koy rey déedéet demewul noonu l'islam du doxee noona lislaam yoonam nekkul ci waa koñ bi xam nañ ko ñàkk nañ koo xam daal ci ak lu mën a xem xew ak ñu ko mën a xam lislaam l'islam yii may waaj a wax moo tax l'islam mooy tax l'islam jàppee ko njaalo lislaam bu amut yii may waaj a wax yoonam nekku ci moom day jàpp ne njaalo ak donte waa koñ bi xam nañ ko ak donte waaj ji digganteem ak yàlla xam na ne daa njaalo dañ koy bàyyi yàlla rek waaye ci l'islam moom duñ ko atte attam njaalo doom ji tamit doomi doomi yoon lay doon kon bu fekkee ne ndaw si kat dafa génn dem ci bitti ñu ne dafa njaalo ak keneen mën naa am siiw na mën naa am nangam lislaam li muy xaar mooy lan mooy ñoo ndir ko ñeenti seede yoo xam ne ñoo gis ndaw sa muy njaalo ñeenti seede yu maandu buñ ne ko ah loolu kat amuñu ko buñ ko indilee kenn mu ne maa ko fekkee lislaam day dàq danaan bëgguma ñeenti nit ñu maanu ñoo xam ne waa koñ bi boo leen laajee ñoom ñëpp ñu ne ñii de kenn ku nekk ku maandu la ñoom ñeent ñëpp gisandoo ndaw sa ba muy jaalo xam nga loolu yombut wala boog ndaw si ci boppam moo saxal ne man kat maa def nangam ndaw si ci boppam moo ko saxal yii bu amut lislaam moom day jàpp ne njaalo amut ak lu mën a siiw ak ñu ko mën a xam ak euh, luñ ci mën a ñaaw njort ak gisoon nañ ndaw sa muy dugg ca néeg ak muy sol ay lislaam moom loolu lépp du ko dégg yoonam néew ci loolu dara njaalo moom daal nañ ko indil seede yi mu bëgg ñeenti seede yooya wala ndaw si ci boppam saxal ko bu loolu amut day jàpp ndaw si doom ji mu ëmb daal doomi waaji la bu kee moo koy gént bu fekkee rek waa ji daa d'accord waa ji moom xëy na da cee ñaaw njort wala nangam nangam nangam l'islam may na ko moom mu dàq moom mu ñëw daal ah man kat doom ji juruma ko ok may na loolu te su boobaa tamit duñu wax ndaw si da ngaa njaalo waaw bu ñëwee ne doom ji juruma ko wala kat sama soxna kat dafa njaalo moom góor gi mu wax ko dañ leen di àtte dong moom ndaw sax l'islam du wax ndaw si daa njaalo de maanaam tuuma dafa dafa dafa yomb tuuma moo tax lislaam du gaaw a tëb tëb di atte yooyo kon ni nga waxee ne waa koñ bi xam nañ ko bëgg lislaam doon atte dafay déedéet demewul noonu demewul noonu waa koñ bi luñ ko xam-xam lislaam moom li muy bala moo atte seede lay doon ay seede rek ndax waa koñ bi léeg-léeg waa bi waa bi léeg mën nañoo saxal dara jekki-jekki ñëpp gëmadoo dara fekk dara du ci dëgg dara du ci dëgg waaw <laughs> lislaam moom du déglu waa koñ bi rek gaañi xam nañ ko déedéet seede rek ñeent ñu maandu nañ ko ko indil wala ndaw si waxal ko boppam bu fekkee jëkkër ji nag moo jóg ne man kat doom ji juruma ko lislaam da koy laaj lu tax nga ne juróo ko wala ëmb bi bàyyikool ci man lislaam da lu tax nga wax loola bu ne ah ndaw si kat man ba may mujj ci moom booba mi ngi doon gis dereti baax diggante bi séqaatuma fi moom dara ma tukki woon nangam nangam lislaam danaa ko li nga wax de yenoon a maana waaye du tax ñu tuumaan ndaw si nag yow ndaw si loo wax ci sa borom kër bii nee na jurul doom ji bu ndaw si d'accord ñu xam ne moo d'accord moo saxalal boppam yàlla bu ne waxul dëgg kat doom ji kat moo ko jur ñu ne ka ah, kon nag yow góor gi wax nga ndaw si wax na duñ nangu kenn na yaa am dëgg ci sa moroom waaw waaw ndaw si nee na njaaliwut nee nga ko da dafa jaalo wax contre wax rek duñ ànd ak kenn kon nag dañuy dañ leen di àtte su ko defee ñu yóbbu nag dem àtte leen loolu am na benn àtte bu cay am buñ ko àttee ba ba ca cëppaandaw ga buñ xamee kan la dañ leen di giñloo ak yu mel noonu bu ca kenn delloo ginnaaw wane na moom kat nàngam ñu xam ne kon kooko moo tuumaal moroom ja mu ngi noonu bu fekkee ne ñoom ñaar dañoo saxal ci loola te jëkkër ji moom mënta indi ñeenti seede yi ñu ko laajoon te ndaw si sëxalu ko waaye jëkkër ji moom jàpp na ne kii juru ko te ndaw si moom d'accord dañuy tas sëy ba duñ na doom ji doomi njaalo la waaye duñ ko duñ ko wekk góor gi tamit kon nañ wattandiku tëb tëb rek naan l'islam day àtte nangam day def l'islam ab àtteem daa complexe nekku na day ñëw rek ne nangam nangam góor ga jigéen ji fekk nañ ko ca restaurant nangam daana génn ak moom daana def moom nangam kese kese mas nañ ko fay bett heure nangam loolu lépp lislaam du ci sukkandiku li muy sukkandiku ñeenti seede yu maandu wala ndaw si nangul ko boppam bu ko ndaw si xasee ba nangu nag moom ñu jàpp la léegi nag euh, sëñ bi li muy laaj mooy léegi léegi bu fekkoon sax léegi lislaam am na ay preuve yoo ne dëgg ndaw si njaalo moo xam jëlee na ci ëmb wala jël am na ko ay seede ñoo ko wax wala ndaw si moo ko saxal ndax sëy ba day tas day det sëy ba du tas waaw sëy du tas loolu tasut sëy xanaa kay la cay am rek mooy bu lislaam doon àtte moom dañuy rey ndaw sax te bu ñu reyee ndaw sax moom waaye du amati jabar waaye bu dee ci jamono jii nga xam ne àtte sa sariha amut su boobaa kon ndaw sa day tuub rek dellu ci yàlla waaye sëy moom du tas bu fekkee nag da caa jëlee ab ëmb digg diggante diggante bi mu ëmbee ba ba muy am doom day araam jëkkër ji jëkkër ji du sañ a séq bu waaye bu amee doom jëkkër ji day kon ab sëy maanaam daal sëy ba daal tësut sëy ba daal jëkkër ji daal bu nee man daa sa sama jabar bëgg naa ko ba léegi jabar ji day tuub rek dellu ci yàlla euh, mu jeex ñu kon ne seenub sëy bu jëkkër ji ne nag man kat lii mënuma koo dékku dama koy fase ñu nangul ko fase ma wallahu alamu alhamdulillah bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj jamono ya jaam bi am ab jaam bu mosaan njaaloo lan mooy atteem atteem mooy dañ koy dóor genn wàllu lañ daa dóor as gor as gor bu fekkee ne mës jaar ci ab sëy dañ koy dóor téeméeri yar bu dee ab jaam ab jaam la nag juróom fukki yar lañ koy dóor waaye nag fi ñu wuutee rek mooy as gor bu fekkee dafa massa jaar ci ab sëy dañ koy faat te bu dee jaam moom dee ko faat dañ koy dóor ak juróom fukki yar wallahu a'lam mbokk mi ci tegu day laaj nee na luwaay yi nga xam ne moom la ñu àtteewoo ci réew mi nga xam ne daa wuuteeg àtteey lislaam lu mel ne ab sàcc nit ki bu sàccee tëj googu ñu koy tëj kaso ndax day teggi bàkkaar ba déedéet du teggi bàkkaar ba de ndax attewuñ ko ci sariya tey tuubut tey tuubut waaw mooy bu fekkee tuubut kon ab sàcc luñ ko tëj tëj tëj te moom mu xam ne ab jullit la lenn rek mooy tax bàkkaar ba man ko wàcc mooy mu tuub dellu ci yàlla te dem baalu ji xàq ka mu sàccoon loolu daal bu ko defee bàkkaar ba mën na koo mën na koo teggi waaye tëj ak yu mel noonu nag loola moom xëy na attey fii la rek Eh, bu dee ci lislaam moom amul benn njariñ ndax dëppoowut ak dëppoowut ak lislaam waaw moo tax ku sàcc daal dem baalu ci xàq kam sàccoon te tuub dellu ca yàlla mooy tax bàkkaar ba wàcc ko bu fekkee daa sàccoon dara ba jëfandikoo ko mu fay mu fay loola raddul mazalimi mu fay loola waaye tëj gi nag moom suñuy attey bopp la wuti nag attey yàlla wallahu aalamu mbokk mi laaj ndax ab dongo daara ndax yàlla dina ko topp waaw bu dee ci lislaam nag lislaam xàmmewut loolu lislaam xamul na kii ab commercant la kii euh, ab donga daara la kii ab nangam lam xam rek mooy ay atte atte yi bu ko xasee ba tër ñépp ko bokk képp ku tooñ daal lañ koy xamal ci sariya mooy daa tooñ daal daa xaraam bu fekkee daa tooñ moroomu jaamam lay tax bàkkaar wàcc ko mooy mu dem baalu ji ko baalu ji ko xaq wala mu bu dee daa jëloon yëfam mu delloo ko lii daal mooy atte lislaam te ñépp a ci bokk yam génn ci kii ab donka la ak kee nangam la ah, dëgg la li mu wax dëgg la ñu ci bari ba rawatina jamono njëkk ya daanaka donka yi moom daanaka dañ daa ah, xaw a xaw a tëradi lool loolu dañ ko daan def xëy na yàlla ci ak mbaaxam yàlla mën na leen a jéggal waaye daal bu dee ci lislaam moom xamut loolu xamut kii jamono yi muy jàng la defoon nàngam wala nangam lem xam daal mooy yàlla saa borom buur bu maanu la te atte yi moom ñëpp ñoo ko bokk yàlla yàlla jéggal na wallahu aalamu mbokk mi laaj nee na moom day daa toog mu yàgg mu xalaat ne am na lu mu daa def loo xam ne ne ginnaaw bi la xam ne ndekete njabar la mu ne nu muy def tuub tuub rek daa tuub rek rëccu ni ma ni ma wax ci laaj moom mooy rëccu na lool kon booba dem na ba ca tegu mooy bu fekkee njabar googu da caa masa lor kenn mu baalu ju ko xaq mu baalu ju ko xaq bu dee luñ mën a wax la mu wax ko bu dee luñ mënta wax mu baalu ko xaq noonu rek baalu ko xaq noona bu dee tamit dafa dafa mas a njabar ba jël alale jàmbur wala mu jël yëfi jàmbur ci loo xam ne xëy na ko ñàkk xam la woon wala da koo njabar ba jël ko wala mu njabar jigéen wala yu mel noona bu njabaree ba jël alali jàmbur kon alal ji faaw mu xam nu mu dellu mu delloo mu delloo ko daal day tuub dellu ci boromam bu fekkee amel na àq nit ñi mu dem fexe ba bu dee alal la mu delloo ko bu dee àq jeneen àq la mu fexe ba dem baalu leen xaq dem baalu xaq te tuub dellu ci yàlla saa borom subhanahu wa taala wallahu aalamu Euh, tuub nag euh, ñett la mooy réccu bàyyi la nga daa def fas yéene ba ba ngay faatu doo ca doo ca dellu mbokk mi laaj koo xam ne dañoo toog ay mbokkam xamatuñ ci moom dara tam bàyyi woon fi soxna bàyyi woon fi alal nee na ñu jàpp ne daa faatu ñu tas ay sëyam may ko ñeneen mii das alalam ndekete faatuwut bu ñëwaatee luy àtte bi xanaa delloo ko lépp delloo ko lépp mooy atte bi lépp lépp lañ koy delloo dañ koy delloo alal ja ku ca doon noonu rek nga fay ay soxnaam it ñu delloo ko ko bu fekkee dañoo nekk ci ak buum ñu tas sëy yooyee ñoo daal di iddawu ba seen idda ji ba set daal di laablu sax laa bëgg a wax wala ñu laablu ba set ñu delloo leen seen jëkkër jee ndax lan ndax nit du dund ñuy doon jabaram xëy na ñoom ñoo defoon a faat na waaye faatuwut nit du yor alalam jekk-jekk di ko miiraas fekk moom faatuwut bu dee ci lislaam nag moom am na aw yoon dafa naa loolu wax dëgg baamu nañ ko ay yoonu yoon am na aw yoon wu ñuy jaar bu dee ci lislaam buñ toogee toog xam ne diw mii gën nañ koo gis ñuy dégg naan moom kat jaaroon na ca gaale jaaroon na nangam lislaam am na aw yoon wu muy jaar wu muy jaar ba gis na daa war a tas mu tas sëy bi buñ jaaree ca yoon woowa lislaam rëdd nag ba tas sëy ba def ko nañ ko war a defee kooku moom borom kër ba bu ñëwaatee tamit kenn du ko delloo soxnaam ndax booba daa fekk ñu tëral ko ci lislaam daa fekk ñu tëral ko ci lislaam waaye nag loolu yoon wu gudd la lislaam yu bari dana ci jaar bokkut ak li xew nii xanaa yi jekki-jekki ana ah, diw faatu na jekki daal di ku leen ko wax kon daa a jaar kon nag lu mel noonu bu amee mbokk yaag mbokki ku góor kaag mbokki ndaw sa ñooy dem seeti imaam ak ay waram xam-xam ñu toog leeral ñu posé leen ay question kañ ngeen ko a gis fu ngeen ko déggoon su ko defee am na benn temps bu ñu jël boo xam dañu koy wër jéem a gëstu moo tax bu ñu jaaree ci yoon wam teg waaye buy dund lu ci ëpp danañ ko gis xam maa jekki-jekki daal di miiras alal ne faat na jël jabare ji bu ñëwaatee lépp lañ koy delloo Euh, laaj bi yàgg nañ koo leeral leeral bu gën a yaatu waaye xëy na mënuñ cee delluwaat nag di ci di ko gën a leeral waaye al mafqud jàngale nañ ko ay yoon wallahu aalam bu dee mbokk mi nee jigéen la joo xam ne dafa ëmb day woor waaye day sedd na bu wooree biiram day metti waaw kooka na dem ca kër docteur leeral leen loola bu fekkee loola koor ga moo ko waral na bàyyi koor ga bu bàyyee koor ga nag day fay day bàyyi ba koor ga jeex mu fay waaye amul lu muy lele nag day bàyyi ba koor ga jeex mu fay xanaa bu bëggee leele rek mu leele ngir yàlla waaye kooku moom fay moo ko war wallahu aalamu mbokk mi leerlu ne koo xam dafa woor di jonjog soxnaam ba dara génn ca moom ku woor dañ naan ko waaw yow ndax jàpp nga ne di jonjog sa soxna di raayanteeg moom ak di seeni yaram yi di laalante ndax loolu jàpp nga ne moom boo ko defee dara mën naa génn mën nga cee yëg bànneex ba dara génn bu ne ah waaw wax dëgg yàlla su ma ko defee moom jot naa dara dana génn ñu ne ko kon xaraam na ci yaw kon bu bul ko def te boo ko defee ba dara génn nag bu dee masiyu la masiyu mooy ndox mi njëkk a génn nga xam ne bànneex bu na moo koy waral kon koor gi day yàqu nga war a fay waaye bu dee mën yu la da ngay kafaara waraloo yaari weer wala eh, leel juróom benn fukki miskin bu fekk fekkee def ne na man kat miin naa sama soxna miin goo xam ne lii moom yàgg naa koo def ta dara lu ma ci diggal ñu ne ko kon dañ koo sib waaw muy def seen yaram yi laalanteeg eh, ak yu mel noona bu fekkee ma daa wóolu boppam jàpp na lii yàgg naa def te dara du génn ci man mu xam ne mu jàppoon ne dara du génn dañ ko dañ koo sib kon de ba léegi gënut ba léegi gënut waaye teewul nag bu ko defee ba dara génn moom ak kooram day yàqu waaye moom fay rek moo koy fay rek moo koy moo koy war daal yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon ku ci woorati Euh, na xam ne cërëm yépp ñoo war a woor bu mu def rafas rafas nag yooyu ci lay dugg di woor fóonante ak sa soxnaak di laalanteeg moom yu mel noona yooyu daal dañ koy dañ koy tere nga wattandiku ko mbokk mi laaj ku sangu ba te jëppul ci biir xëy na dafa sangu rekk fexe ba yaram wépp tooy ndox mu bomb ak nàngam ndax bu noppee dana mën a dem julli te du jàpp waaw waaw bu fekkee difaatut lu yàq njàpp ba sangoo ba noppi loolu nag jàngale nañ ko ay yoon yoon yoon loolu boo ko bëggee def booy sangu jarab ngay xaaj sa jëmm ji yetti xaaj daal di jukki li tàmbalee sa jumbox ba sa bëti woom nga raxas kanam nga ginnaaw xanaa sa sàkkara sa sawukaay ci lay nekk nga raxasaale ko ba mu set ndax góor sax laal sàkkaraam mooy yàq njàppam ni bu dee jigéen sax laal ab sawukaayam du ko yàq ci wax ji gën a wër ci yoonu Maalik kon day raxas foofu nga xam ne sàkkaraam ci la nekk bu noppee nag mu daal di tàmbalee ca bopp ba ba ca jumbox bi raxas fépp te mu set mu noppee daal di tàmbalee ci óomi ba ca tànk yi lii ku ko def jàppoo boo seetloo amul am jàpp ci sangu janaba gi waaye bu génnee te sa ndek julli jot te difaatul la yàq njàpp laalaatul awraam tuuraatul ndox génnewul ngelaw bu génnee rek mën naa dem julli ci wallahu taala alamu sawaab